moo ko waral yàlla boole ñu aussi muy sincère mu yàgg te nekkul dara loo xamante ne daf ko rax ñi taxaw ñëpp ñoom ay salon ki salon moom la yor ñu yor seen i boutique dañ ko tëj ñëw parce que man maa tax ñu def ko soo ba tey kon nit ñooñu awma seen fay yàlla boole na ma ak ay nit yoo xam ne mënuma leen a fay kon ñii dama leen di ñaanal ku ma bëgg na ma ñaana yàlla bàyyi ma ak ñi ñooy sama njaboot ñooy sama lépp ñoom ñëpp Fatima Ndey Bint Tubaab euh, Layla sama lakkal ah. ñoom ñëpp nag ni mënuma lim faama kii ñoom ñëpp sama kër la ñu nekk xam nga kon loolu rek famille la boo xam ne dara mënut ko dindi ñoom mag yi jenn ba tout moon mhm. mais du ma remercier kenn sama yaay dama koy gërëm di ko ñaanale yàlla mhm. di gërëm Penda aussi sama grande sœur ñu bokk ndey ak baay mhm. mais moom mooy gën a sonn ci mbir bi fajar la allo yow yeewul nangam ak nangam comprendre nga lépp rek parce que loolu mbokk moo koy moo koy lii ak ñoo xam ne dañoo suude ak tamit yar bi ñu yar ba ñëpp ñu mën nekk si jàmm Papa Samb yaakaar naa yéen ñëpp fi fekk ngeen ko fi maa moom ñoo bokk ndey ak baay mais sooba tey toogul taxawul mu ngi nekk ci lépp et tout xam nga kon loolu rek sant yàlla la kii toog ni bàjjen daya wax lu tudd suñu bàjjen na ñun ñëpp muy ku baax koo xamante ne bii su lu ñu nekk day ànd ak ñun di ñu di ñu di ñu protéger xam nga mënu xëy peut-être soo waxoon ne bàjjen diw bàjjen diw la après nañ ko interpréter neneen mais nit la koo xam ne daw dara ci yaa awa daf ma bëgg te yàlla rek tax mu nekk nit ku baax nit ku dawul ku ragalul féete. parce que kii toog nii mën naa présenté ne bàjjenu Sidi Diop la ma papa Sidi Diop bokk ndey ak baay. waa mu jàpp ma bëgg ma te yàlla tax seen famille presque ñu bare ñu ngi ci biti. kon loolu famille la boo xamante ne nit moo du ko dindi. te loo xamante ne lu nekk la. waaw loolu mënul ñàkk mais jusque ce jour mi ngi ak ñun. daa da waaw moom dafa dagal ay nit loolu yëpp rek. ak euh, complicité bi nga am ak doomu aadama yi moo koy waral ak jàmm bi ak salaam bi ak sa frère yi nga xamante ne dañ la jàppale du début jusqu'à la fin euh, ñoom Matar Diop Subatel du ma mënuma lim te du ma leen du ma lim parce que ay frère la yoo xam ne tout le temps ñu ngi lay encouragé di bëgg yow di bëgg ngay avancé ay Jules Awalaay ay ñoo xamante ne bii mënoo leen ñàkk sax ba ñu wax sa carrière parce que ñu ci jàpp lañu ñu ngi ci jàpp te tout le temps ñu ngi lay woo fan nga toll lan ngay def et tout ça vraiment aw ma aw ma fayu maanaam euh, lan mooy forger Yaawa parce que critique yi d'accord mooy mooy li ma la wax mooy am na am na toogaay booy toog mooy waajur sa réew la quoi yaa ngi diisoo ak ñoom man je communique avec avec mes parents su lu ma nekk damay wax ak ñoom dañuy waxtaan parce que sama papa sama morom la duma amee lu ma am lu ma ko laaj parce que toog jaar na fu nekk liggéeyoo de yow koo xamante ne bii euh, moom am na ci yum jaar bokk na ci ay ci ay ci ay yenn groupement yu bari ci Sénégal jaar na ci ci yu bari bokk na Jamra bokk na fu nekk kon kooku dina la mën a orienter ci life pour nga mën a xam fi ngay jaar parce que ku waxtaan mënoo xam àdduna bi ni muy doxee quoi te man je communique avec mes parents sama yaay aussi pareillement sama sama sama papa am naa aussi ay conseillers ñoo xamante ne damay waxtaan ak ñoom pour mën di jëlee ci ñoom lu bëree bëree bëree bëree bëri pour jusque saa yi su ma génnee wala saa su may def naa def loo xam ne kenn du ne accam et que dinaa bëgg di du du ma bëgg di dinaa bëgg di impressionner nit ñi mais pas de impressionner ci du négatif parce que tey su ma defee dara ñëpp xool ne lii ma def baaxul ñoom seeni bët naa jéem bu ma koy defaat ma def ko ci loo xamante ne bi dina baax et dina dina neex doomu aadama yi bu dee mënoo def à 100 pour lu neex nit ci maa ko tijji sama propre moyen mais maa ko tijji sama propre moyen ñi xam nañ li may wax comprendre nga sama propre moyen amul partenaire amul dara nee naa la am na ci ñoo xamante ne ñooy mooy ñi ci jàpp mooy ñi nga xamante ne mën nañ la wax lii fi nga ko mën wala fi nga ko mën a benn nit la muy sama yaay Souadou Lay États-Unis bagage yu bari presque mën naa foofu lañ ko jëlee ñu indi ko foofu que moom moo nekkee côté boobu loolu amul kenn ku ñëw ne ma am lii financement la demal nga def ko sa pare nga delloo ma sama xaalis lépp sama moyen bopp laa ko defee dañuy bàyyi xam nga jël sa xaalis investir nekk d'accord xam nga xam nga tey showbiz moo nekk loo xamante ne du xew yi boo demoon cent ans boo ñëwaatee showbiz fu mu nekk lay nekk moom dafa fa ça bouge pas te ñun ay nit lañ yoo xamante ne ñu ngi dox dañuy nekk di ay mère de famille wala nekk ci leneen kon war nañoo jéem a teel a euh, cadre suñu life am fenn fu ñu koy teg nga xamante ne lii boo ci jugee mu leer na ne lii yow yaay dem bàyyi ko fi parce que moom du dem di la fi bàyyi yaay teel a teg ko après nga dem fo euh, focus ci sa liggéey jéem am ci loo concentré nga nekk ci loolu. ginnaaw loolu Sidy Diop ci boppam gis nañu jamono yi nga xamante bu ñu waxee famille. fami loolu dara mootu ko dindi. xam nga nit lu muy dagg lu ñu xamul mais xamee kenn mënu koo dindi. te nit looy daw day fekk la la nga doon daw baaxul ñun ñëpp ay ay êtres humains lañu. am na loo xam ne dañ koy sàmm. te dañuy continuer di ko sàmm ba keraa ñuy dee Sidi ba déwén ginnaaw déwén frère lay nekk sama lépp lay nekk parce que sama xarit la nit ku baax la nit ku am yërmande ci nit la et que di wax sama papa di wax sama frère chaque jour kon am na loo xamante ne bi nit nit ñi ñu comprendre nag base bi mais moom xam na yaa awa xam na te sama xarit la sama lépp la parce que nit ku baax la nit ku xam nitam la et du tey quoi 2017 à 2022 wala 2023 du ay ñetti fan kon kooku yàgg na xam na ma xam naa ko sama frère dara du ko dindi du am benn virgule bu ñaaw buy dox sama diggante ak moom parce que jiwantewuñu loolu quoi nit ku baax la ah man yooyu nag moom wóoruma moom parce que sama rakk moom ma wax la benn affaire man fi mu ne nii moom mën na ma coup d'état moom si te du ko yëg parce que ñoom ñaar ñu ñuy li ñuy dundee vraiment ëpp na ma sax man niveau parce que ñoom ñaar ñoo sekk lool te kon foofu xam lu ñaaw bu fa amoon day dégager sama rak mais que ni mën naa ne ñii nii toog nii yëpp bu ñu jógee fii ñoom sii di bu paree woon nii dañuy dem ko kon loolu famille la lu mënul dañ ñii di toog ba xaa yow sii di lañ bokk ñii nii nekk ay doom foofu laa na xamee woon mais loolu daggul te lañ kon ne gën a nekk ak man te suba la gën a dem ànd ak sii kon lu dul dañ la nit ci dañuy dañuy du ñu xàmmee nag des fois li ci kaw ak li ci suuf dañuy day duñ ko duñ ko distinguer quoi les deux mais lépp benn la et ku nekk da ngay pare nga nekk sa live quoi. bien sûr lépp lépp nice nit ñu ngi si jàmm ñu ngi salaam boo xoolee man ma defuma sax ay Mumbai ak lii parce que juste cadre travail laa woote mooy liggéey nit ñi ñëw ñu ubbi boutique bi ñu visiter ko après si saa mu jeex. ak eh, ki nga xamante ni moo di magu yaa awa rasul di seen taawu kër eh, tey yaa awa eh, salaamaaleykum waa maa ngi leen di nuyu di leen ziar a ah, di nuyu ñëpp yéen surtout yéen journalistes yi leen nuyu bu baax ndax seen liggéey macha allah dañ koy rafetlu yaawa nag sama rakk la yàlla moom la def maam benn rakk bu jigéen muy moom ñun ñaar lañ bëriñu mais muy rakk joo xamante ne rakk ju ma ju ma ju may damoo la ndax lii rek ndam la koo xamante ne da nga nekk si biis di liggéey ñëpp xam la ci lii nga xëy tey ba ubbi sa boutique di liggéey dem di voyage dem di ñëw te lépp yaa ngi ko def si jàmm lépp yaa ngi ko def si yar lépp yaa ngi ko def si bëgg sa réew loolu sant yàlla la xale bu baax xale bu yaru xale bu bëgg ay mbokkam bëgg man bi man bii di magam bëgg ma fonk ma respecté ma bëgg samay doom mais tey bu ngeen dee toog euh, mu nekk xale boo xamante ni macha allah wàccul yoon benn yoon dégg ay critiques yu ñaaw wala ay wax yu ñaaw ci moom euh, naka ngeen koy dundee. day metti du metti parce que xam naa sama rakk moom mooy kan xam naa ko parce que nit ki nga xamul moo lay jaaxal mais ki nga xam ne yéen a demandoo ba âge ba ker baa ngeen di màgg ba heure bi ku nekk nekk si li nga nekk ñii liggéey di ut lu baax pour sa réew. kooku loolu ñu ko mënti waxal du ñu def dara parce que dina metti nag des fois parce que ñu lay waxal loo xamee amul dina metti mais chaque jour lii moo koy faj réponse baa ngi di mooy tey lii mu def tey loolu mooy réponse bi. moo la gën a neex ci moom. Euh, yaaw li ma gën a neex ci moom mooy bëgg nitam bëgg xale samay doom daa mel ni comme moom moo leen jur bëgg xale bëgg nit fonk nit ndax looloo ko may tey li mu am nii waaw loolu ma gën a neex ci moom muy nit ku baax pare bëgg famille am nag lu mu am rek famille am moo ko gënal. waaw ban conseil nga koy jox ci yoon bu bees bi nga xamante ni moom la jël góorlu bu baax rek foncer rek jëm ci kam rek ci kanam di ko ñaanal yàlla mekk ba mu amaat yeneen boutique yu raw yi ba loolu laa koy ñaanal euh, toogal maa ngi ak DJ moom mi nga xamante ni moom moo tuddee yaa awa rasul doom euh, DJ ñu ngi lay char bu baax a baax en plus doon magam xam nga loolu yombul voilà euh, tey bu ñu boo ñu doon résumer en quelques mots yaa awa rasul mooy kan bon maa ngi nuyu mbokk internet d'abord képp ko xamante yaa ngi ñuy bi maa ngi koy nuyu bu baax a baax bon yaa wax si moom dafay xaw a jafe du ma mënuma ñëw rek décrire ne kii mooy Yaawa Rassoul parce que dafa bëri ay facettes la bu baax boo xamante ne man sax des fois daf may jéggi sama rak la ñoo bokk benn papa mais dimension bi muy àndal des fois auteur bi nekk si moom man des fois daf may yéem des fois dama koy woo wax ak moom laaj ko nekk mais yow yi may dégg nii yëpp ak yi may gis nii yëpp yow noo koy dundee tu le kenn après boo toogee sa xel dafay dal fu lay xamee ne lii du dara adduna la rek dafa teel a comprendre loolu man des fois bu yenn amee dama koy comprendre maa ko njëkk nekk ci show bi animateur la dem naa fu ne dugg naa fu ne xam naa milieu bi ni mu mel moo tax des fois ma doon tiit ci moom yi may gis yi may dégg mais saa yi ma waxee moom ba mu tontu la dafa lay rassurer da gis ne kii nii kon li mu dugg nii dugg ci ak caaxaan et puis elle avec sa xam na li muy def lan la xam na li muy wax lan la te lu ñëw daf koy jël xool nan la koy analyser waxtaan ci ak ay wéjuram waxtaan ci ay magam waxtaan ci ak ñi mu war a waxal ñëpp donc nit la boo xamante ne franchement parler euh, mu ngi ci yoon dañ koy ñaanal rek yàlla na yegg ni aw yoon parce que lépp lu mu song daan ko te yaa fusul nangu na yëngatu nangu na nangu na liggéey lu mu am mën na ko bokk ak ay mbokkam mën na ko bokk ay xaritam donc nit la boo xamante ne daal yàlla moo ko defaral boppam coow li nag des fois mu bëri wax ji dina bëri mënu ñàkk Sénégal la ñu nekk mënoo fu nekk te duñu wax ci yow mënul nekk donc c'est tout à fait normal pour ma wax jooju daf lay defar ëllëg bu tey li amee ñu wax suba nga xool fooy taxawaat leneen amaat ñu wax nga xool fooy taxawaat ci kanam rek ngay jëm incha allah. Euh, tout à l'heure yaa dégg mu wax ci relation ak Mook Sidi Diop parce que sénégalais yu bari euh, dañuy jàpp ni euh, peut-être Mook Sidi c'est fini alors moom ci ñu boppam mu wax ni ni digganteem ak Sidi Diop Sidi Diop frère am lay mës a doon te moom lay mës a doon tey jii bu ngeen toogee dégg yéen sénégalais di wax loo xamante ni wóoru leen. waaw bon Sénégal lañu rek. chaque jour nit ñi di xëy ba karaa ñuy tëddee di wax lu ñu xamul man récemment li ngay wax dégg naa ko man maa déglu Sidi Diop wax man mosuma xam loolu Sidi Diop wax ne moom mooy amoon nañu relation boo xamante ne ni mais c'était tout à fait relation bu normal mais dem nañ ba à moment ñaar mais ku si nekk da ko jëlee côté bu positif te yaa awa bu ñu ko posé question mu wax ne bu ñu nekkoon sax tey suma frère la loolu lu mu gëm la man dégg ko mu wax ko waxati ko waxati ko te loolu lay dundee tey bu ñu demee ba bàjjenu Sidi Diop ku bokk ak papa ay ay ay ay mbokk ñëw teew fii donc ñoom ñaar maintenant am na lu leen lié te famille la dara mënatu leen jaxasee auteur la ciy waxee te li muy wax loolu la gëm tey moo Sidi dara moytu ñaaw seen diggante man Sidi su bu ñu xamante maam moom grâce à Yaawa dañu daje concert ma koy présenté ñu wax ko ne ko kii euh, magu yaaw la mais depuis lors nii la ma def dafa fa xàmmee ma fu dajeek man day taxaw waxtaan ak ma et loolu yaaw moo ko andi donc nit balaa ngay waxati na nga wax loo xam et puis sénégalais aussi euh, nañuy faral di gëstu balaa ñuy wax bàyyi ñëw rek di wax ni dans les tali ngay wax xamoo si dara doy na waa trop. conseil nga koy jox ci yoon bu bees bi nga xamante ni moom la nekk. focus focus gëm boppam Sénégal loolu la fi am xëy liggéey wàcc dem nekk sa ay affaire bàyyi wax ju bëri ji bañ a dugg ci yoo xamante ne sa yoo nekku ci loolu moo fi am man damay xëy liggéey pend xëy liggéey yow nga xëy jël sa micro dugg fi ngay dugg tey dangay liggéey sa fii loolu nga gëm donc loolu laa koy digal focus nekk ci liggéeyam bu mu boolee dara ak wax ju bëri nga tey ku mel ni euh, Youssou Ndour fi mu àgg ni la moo ko may. ñàkk tontu. ak liggéey kenn du ko dégg muy tontu kenn du ko dégg muy wax ju bëri kenn du ko dégg attends ñun ay animateur lañ Boubacar Diallo Pape Cheikh Diallo fi ñu àgg tey la moo leen ko may. noppi nekk seen liggéey boo la ñu dara wax ju bëri loolu mooy l'essentiel fii nekkal ci li nga nekk gëm après yàlla mooy mottali lépp incha allah voilà merci beaucoup jaajëf. Euh,